daa am sunu mel ne mbokkum jullit bu baax ñu di ko wax sëriñ xaadim Ndiaye Rachid yal ko yàlla doole sàmm mu nekk jàngalekatu alquranul karim waaye doon wootekat ci lislaam xam-xamam alhamdulillah ak njàngaleem ñu baree baree bari ci àdduna ñu ci jëriñu yal na ko ko yàlla defal yiw def ko ci misaanul xasanaatam ay waxtaanam ak i njàngaleem lu ci baree baree bari dañ ko tabbal ci benn page YouTube ngir mu gën a tasaaroo ci àdduna ñu ñi mën caa jëriñu bu baax waaye yooti yuti boobu fi mu toll nii may wax ak yéen ci tey le 18 octobre 2023 dañoo tëj compte ba lan moo sabab ñu tëj compte bi mooy ni dafa am lenn ci ay saay-saay dafal ni laam dafal ni may kële mu jàll euh, dafa am lenn ci ay saay-saay yoo xam ni euh, ni cheikh bi di sonne lool ci ngir nit ñi gindiku ngir nit ñi mën a xam seen diine noonu la amee ñeneen ñoo xam ni dañu sonn lool ngir nit ñi kenn du jariñu kenn du xam dëgg du feeñ biig ci guddi yàlla borom bi dogal na am ay saay-saay yu fexe ba piraté compte oustaz Khadim defoon ci ab direct boo xam ne ay tubaab lañ cey wane ñuy def jëf yoo xam ni jaaduwul sax doomu aadama di ko xool waa YouTube tëj compte ba mboolem vidéo yi nekkoon ci compte bi lépp nëbbu na doo ko mën a gis fi mu ne nii boo duggee ci compte bi da ngay gis ñu bindal la ca ne dañ kaa tëj ngir ni waa ji daa def lu jaaduwul lu ñuy tare fekk na saay-saay yooyee la Cheikh de mi géré compte bi yàlla dogal na mu jokkoog waa YouTube ñu ne ko danañu xool fii ak soixante douze heures ba xam ñu ngi ñaan yàlla buñ ko ubbiwaat vidéo yi lépp dellu si waat waaye kon képp koo xam ne bëgg na suivre oustaz ci tafsiram yeeg njàngale mi nañu ko dàkk ci groupe whatsapp yi ak telegram yi te ñu xam ne loolu ay saay-saay ko def lu mel nii nag bokki jullit yi dafa bari lool lu mi dal jàngalekat yi ak wootekat yi ci lislaam ñu di leen ko bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax am na beneen ci facebook mel na mbokk moo xam ne ci facebook daa ubbi ab compte bind ci turu oustaz Xaadim Njaay comme ni oustaz bindee turam ci page boppam ca paas boobee waaj a ubbi defaat ci photo boo xam ni photo oustaz xaadim la ci boppam bind ci suufu photo bi sëriñ xaadim njaay rachid compte ba sax yàgg na am na ay groupe yu bari yu ca nekk am na ay publication yu ca waaj a di def cheikh daawuda ci boppam mi géré yi am lum ragal ci kont bi jokkoog waaja ko waaw sëñ bi compte bi nga ubbi bind ci turu oustaz xaadim ak photom lu sabab waa jooje tontu ko ni ko ah ko bëgg te yàlla tax Cheikh Daawda ni ko waaw ndax mënoo woon a soppi tur wi def ci weneen tur woo xam ne danañ xam ne kii du oustaz waaja lànk ni ko déedéet mu ni ko ah ñun de dañuy ragal nit gis ko yaakaar ni kii sëñ xaadim la muy wax ak ci compte ci wax yoo xam ne oustaz rek la ko waroon a wax nga xam ne vie privée la far mu dal ci yow ndax do soppi tur wi kon ngir loolu waaji ne ko déedéet Cheikh Daawud ne ko ndax mën ngaa jokkoo man ci sama numéro whatsapp sama numéro ngi nii waaji ko déedéet mujj gi waajoojee bloqué na Cheikh Daawud ci boppam pour bañ a waxateeg moom léegi nag ñu xel ñëpp rek ni lu mel noonu am na ci Facebook bi <clears throat> yàlla moo xam mën naa am lu baax la ci jublu wala safaan waaye daal ci gàttal fu waaye mën a fekk vidéo oustaz Xaadim muy jàngale moom mën ngaa jël ak fu mu mën a jógee rek am njàngale la waaye képp koo xam ne bëgg naa wax ak oustaz ci boppam mën na ko jaar ci numéro boppam moom oustaz wala mu wóor ko ni kii may waxal oustaz la ci boppam wala Facebook bi am na ku ñuy wax Cheikh Diop Xusari ñu baree bay xam nañ ko ci Facebook bi boo jokkoo moom dana fexe ba nga jokkoo ak ci jëmmi boppam incha allahu taala kon daal loolu lañ doon wax mbokk yi dañoo nekkoon sax ci aw yoon waaye bi ñu ko yëgee rek ci lañ jokkoo ak oustaz jokkoo daawda ci la ñu waxee nag nañu taxaw def vidéo boobu bàyyiloo xel doomu aadama yépp ni compte oustaz dañ koo tëj kon képp ku gis benn conte bu ñu bind oustaz xaadim di ca dugal ay mbir yu dëppoo wut ak lislaam du oustaz keneen la wala muy ay saay-saay yuy yàq ñu di ko bàyyiloo xel ñëpp di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu sàmmal ñu ustaas sàmmal ñu mboolem suñu borom xam-xam yi jàngale yàlla yi jàngale ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam sàmm mboolem kuy daaya islamiya di ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala lépp li muy jàngale ak di ko yeete yàlla def ko ci misaanul xasanaatam moom ustaas ak képp ku koy def wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu